waaw alhamdulilah loolu seen interprétation la la ñoom ci seen bopp ustaas bi muy wax ñëpp a ngi ci saal bi dañ ko wax loo xam ne lii indaale ko muy audio yoo xam ne booba moom jeune la gone la te at yooyu boobaak léegi mat na vingt ans diggante boobu loi Sénégal du ko jàpp kenn mu ne bu dee loola ma doon wax ci ndaw loolu moom ku mu laal maa ngi lay ba maa ngi lay jéggalu lii mu wax nag la mu waxoon la waxaat bu dee audio bu mujj bii la mu waxoon la waxaat nee na laaluma ci turu kenn tudduma wasifa tudduma euh, xadara tudduma kenn te li ma wax leeral na ko te yow mbokk dugal internet di nga gis ñoo allah allah di di di baaje ah. ñooñu est-ce que fii lañ dëkk mm-hmm. ci yeneen réew ak yeneen réew mm-hmm. dëgg nag moom dafa neexul yow nag léegi su fekkee ne yow da aj da ngay bañ ku séentu problème bi yëpp loolu la ku aj bëggul kuy kuy xeseen sax bëleem parce que da man lay kii mais moom tuddul turu kenn loolu it nag jégguwulu ko de na leer loolu jégguluwu ko ah. la mu jéggulul mooy la nga xam ne mm-hmm. defoon na ko vingt ans ci ginnaaw loolu la ne ku ku mu laal maa ngi lay jégalu yéen ñëpp a ngi fa woon ku ne ngi fi journaliste yi ñoo gën a yegee ñëpp lii moo am bu ñu waxee leneen nag wax ko ci ay ku nekk mën nga wax lu la neex mais li am mooy lool nga baal ma mais si si nga ne par exemple jégaluwul. waaw ndax damay dégg ni. waaw discours bi mu doon tenir. waaw ba mbir mi egsi fii ndax lay continuer di tenir même loolu dafay changer. discours bi mu bi mu mujjee nii. boobu day avancer. mais bawoon ne ci ay vingt ans boobu du dem. mais di defaat loolu. que di mujj fu ñu di defaat lan. par exemple même discours bi. di wax te tooñ te te tuddul kenn. waaw moom dafa nekk sursis. dafa nekk sursis. Mhm. mais lañ ko lañ ko condamné. Mhm. lañ ko condamné mooy la war a ca vingt ans. Mhm. même bu nekkee sursis. bu waxee lam lam mujj a wax. kenn mënu ci mënalu ko ci dara. wala moom yéen a ngi ci réew mi lañ dëkk ñun ñëpp xam nañ lu wax. tudduma kenn tudduma diine kenn. ñu ne la lu bul waxati loolu parce que daa niroog li ñuy def. loolu kenn du ci jàpp ni. juge bi juge bi waaw dafa ne ko waaw. allah allah boobu nga mujj def. waaw kenn topp la ci. kenn topp la ñi nga la topp si. waaw Cheikh Tidiane bi nga tudd. waaw mu ne loolu ma tudd. waaw maa ngi siy jéggul. Mhm. te te ñun sax ahlu sunna ñëpp. waaw tudd bi Oustaz Oumar Sall tudd. waaw turu Cheikh boobu. waaw ñu ngi si jéggulu képp kuy taalibe Cheikh. Mhm. parce que waru woon tudd tur diw mais wax na ni jamonoy ndaw moo ko yóbbe loolu mais kantaam mu toog mu ni saxaaba yi mosuñu sànni benn affaire di wax allah allah noonu la ko répété si kanamu juge bi te loolu day continuer incha allah mais nag turu Cheikh Tidiane bi ñu ngi si jégglu ñëpp parce que ojo boobu sax dégg nga juge bi lu pas normal. Hmm. ñu jël ojo boo xam ne c' est quatre vingt sept ou hmm. jël ko bërëq ko ci biir benn plainte boo xam ne. Hmm. bi oustaz defee loolu ñu jël ko bërëq pour. seen karawaas gën a dal. juge bi topp ko ci loolu. même ñi nga xam ne ñoo ko doon jugé wax na ne lii warul woon ñëw. parce que lii la lii la leneen leneen la. mais ñoom gannaaw lii mënuñu am argument dëgër yu ñu téye il faut ñu jël ay mbir mais yéen ñëpp. yéen ñëpp gis ngeen xam ngeen ni lii oustaz wax diine la diine ji ñun ñoo ko bokk nit amul benn droit fekk lu ñëpp bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al yawma akmaltu lakum diinakum diine ji mat na sëkk nga dem indi seen mbir ni ci sërëx après ngeen bu ko kenn tudd donc subhaanallah lii ban dëkk la yonent bi wax man amala ma man man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amaluna foo war léegi nag dañuy toog di xooli nii rek diine gi dañ koy bàyyi nii lu waaye neex rek mu dugal si mbokk dañ koy kii leen daal am na moom mais justement est bi euh, yéen da jàpp ni fii ci Sénégal yéen ñu ko war a réglementé yéen non loolu mm-hmm. par lañ ci am rek yow mii am nga ci part mm-hmm. kii am na ci part kii am na ci part képp koo xam ne gis nga mm-hmm. loo xam ni bokk ci diine ñi dugg ko ñeme nga waxal ñeme woo demal toog mais daal xam naa ne charge la ci yow jukku la ci yow melokaan la ci yow cër la ci yow nga wax lii bokk ci na nga koy waxee nag yaa ko xam mhm. bu la neexee xatraayul bu la neexee kii wal waaye kenn ku ne si ñun war nga gis lu bokkul si diine nga ñu lii bokk ci am pay am am payu yàlla donte nag donte dañ lay saaga wala dañ lay xas wala dañ wax lu war a mais daal suñu borom subhanahu wa taala digle nañu diinam ji nañ ko ko samal parce que yeneen dootul ñëw gannaaw Muhammad léegi ñan ñoo fi nekk pour seetal diine ji mooy jullit ñi borom xam-xam yi bokk nga ci man bokk na ci gis boo gis am ci masala boo si mën tontu waxal lii bokk ci rek après nga dem si woon mais ñu tëj gémmiñu ñëpp noppi beneen beneen bi mooy. xam naa non beneen mooy. moom bu ñu comprendre question bu baax. waaw man dafa am lu may day poser question boo xamante ne nee na ndaw oustaz lu mu doon daawaa bu ñu njëkk. dina si changer dara. gis nga daaw sunna alayhi salaatu wasalaam oustaz du si dindi virgule parce que yónnee salaam moo ko jàngale te loolu lay wax moom na tudd tur kenn. dafa yàlla dafa wax bi salaa salaam lii daaw won ko def <coughs> te li ngay posé question bi ngay posé du si en arrière bu toogoon tey di defaat dara day toog mu ne yonent bi salaa salaam lii daaw woon ko def daaw woon ko def parce que du fi en arrière parce loolu moo am kantaa yi ñu koy toppee ay 97 loolu nee na fukk jeunesse moo ko yóbboon te ay de 25 ans la ko defee woon bu dee laal na seen pas-pas si wàllu loolu ba mu leen métti mu ngi jégalu moom si loolu la jégalu mais jégalul. ci tafsir bu mu def Castor fii mu ne am na ñoo xamante ni dañuy toog benn affaire di wax allah allah allah loolu yonent bi salaa salaam daaw ko def loolu daw ci dara tey la ko gën a mën saxal te bi isnillah ni ñu koy defaat tey la ko gën a mën saxal parce que duutul kenn lii yonent bi defu ko yonent bi defu ko ku mu naqari nag yow balaa ngay tere nit dara mais indi agrément nga ndi yonent salaa salaam def na ko loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu mooy xam-xam man waxee fi xam da ngay ñëw tontu ma ci xam-xam mais doo jël ay plainte di ko moom am na ñu koy saaga fi <coughs> am na loo ko loo ko lu nekk lañ koy wax traité lu ko ne lu ko neex mais ñoom mosu porté plainte kenn am na ñu nekk Sénégal bi wax nañ lu gën a pire loolu te porté wuñu leen plainte pourquoi porté wuñu leen plainte kon équilibre moo fa amul par parloo moo fi am ah kon di jël ñuy woote sunna ñu leen di plainte ñu ñu woote sunna mën nañ wax fi mën nañ wax fi tarixa yeneen wax te ñoom du leen porté plainte affaire bi amul amul waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatullah. xam naa man li ma ci leeral rek mooy ci wàllu médiation bi nga xam ne ñun ñoo ko doon def euh, mën naa wax ne euh, bi ngeen doon dégg ci réseaux sociaux yooyu yëpp ñun ñoo njëkk jël suñu téléphone euh, en tant que ci fédération nationale nga xam ne moo ëmb sëriñ daara yi nekk senegal yëpp man ma nekk président bi nga xam ne nii mooy ci wàllu. Euh, li ñuy wax si xadaay mooy wàllu justice ak sëriñ daara yi man maay président bi sëriñ Jili Mbay xaadimul Quraan léegi bi loolu amee en tant que nag ci fédération bi droit la comme ni ma koy defee ci sëriñ daara yëpp te avocat yu bari macha allah dañu ci jàppale. Hmm. ah ma jël sama téléphone daa di woo Makhtar Sarr waaw ne ko man de mbirum Omar Sarr moo taxoon ma doon la woo waaw. waaw li ma la li ma la ciy laaj nag mooy ndax ñi ko porte plainte xam nga leen mu ne wax dëgg yàlla xaw leen donte ci réseaux sociaux yi am na ñoo xam ne nii jàpp na ne man ci laa bokk Makhtar Sarr ne ma ñoon donte ñu bari defe ne ne man ci laa bokk waaye ba léegi fii may waxe yow xaw ma leen ma ne ko man dama lay woo en tant que jullit ak morom la mooy lan mooy ni ko yonent bi sallallahu alayhi sallam waxee seen mbokk jullit buñ ko tooñee bu tooñee dimbale leen ko kon nag dama bëgg ñu dox ci te yàlla tax bu ko defee man ñi nga xam ne nii ñoo ko porté plainte man su ma leen mënee xam mu ne ma danaa la ko gëstu léegi bu soobee yàlla bi ñu toogee ab diir ci la ci la ma woowaat daa di jox ma numéro ku ñuy wax Cheikh Guèye mu ne moo leen nekkal fii ci Sénégal parce que mbir mi international la ne ma wax na ma ak moom léegi yow ni nga waxee man waxee ko ak moom man it ma jël sama téléphone woo Cheikh Gueye ñu waxtaan bi ñu waxee ba pare wax dëgg yàlla mu ne bu soobee yàlla danaa la wuyu ci ci woote bi nga xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy woote en tant que jullit ak morom ma waaye comme du mbir mi du man dong dañ maa jiital fii rek may ma tuuti bi ma ko mayee ñu toog ab diir mu daal di woo ma ne ma léegi ki nga xam ne moo leen toogal international ñu koy wax Alhaji Malick Diouf mu ne ma waxtaan naa ak moom léegi yow woo ko nga wax ak moom. ma jël sama téléphone woo ko bi ma ko woowee wax dëgg yàlla wax moom ba pare ah mu xamal ma ne ma yow de wax dëgg yàlla ni nga waxee nii de incha allah da nga xam ne ñu nit ay jullit lañ dinañ la wuy si ci gàttal loolu ci la ñu waxtaan ñoom nee na ma ba ba ba jàpp dat ne ma suba nañ daje ca 16 ba muy point 1 waaw léegi nag man ti ma daa di woo muy Cheikh Ibrahima Kébé mii nga xam ne mooy président fédération fii euh, Tëngéej léegi ma woo ko woo imam Babacar woo ah euh, euh, Mansour Samb men léegi pour ñu war a dem li nga xam ne moo tax ñun maanaam demuñu demuñu ca ndaje ma mooy biñ demee ba jóg pour dem maxtaar dafa sàkku koo xam ne nii dafa bokk ci rakkam wala magam mu Omar Sarr pour mu bokk ci ndaje bi léegi nag bi loolu amee nag léegi ñu jokkoo ak maanaam rakkam mu xamal ne moom ko dafa ñaar permis ba mu ngi nii di seetaan di di seeti Omar léegi mënu ko cee wax dara en tant que Omar di ko di muy gisante ak waaw loolu daal ci gàttal mooy mooy moo moo ñu tënk ba ñun jotuñoo kii ba waaye bi nga xamee ñoom dajee nañ ba waxtaan ba tënk ba ne bu ñu xëyee danañ rocci pelante bi ah def nañ ma main libre sax woo ma man it ma wax léegi bi ñu ko génne ci la ko euh, euh, Maxtaar poste ci page Facebook am léegi am am ñu commencé nag maanaam di euh, wax lu leen neex wane ne maanaam ñun kenn yónni wuñu wuñu mel noonu déedéet ñun kenn yónni wuñu yàlla moo ñu yónni akum yónnentam. d'accord waaw intervention yi xamante ni def nañ ko. Euh, mu mujjee fii. ak euh, daan yi nga xamante ni moom teg si ndoddam. gis-gis nga ci am. waaw. ban gis-gis nga am si yi ñu teg si ndoddam maanaam moo assuré. waaw non gis ma ci am mooy ala kulli xaal lii lii moo war a am. Omar it dañ koy sant di ko gërëm parce que wax dëgg yàlla ni mu waxee macha allah ndax gis ngeen mbooloo mi topp ci gannaawam waaw kon Sénégal jàmm rek moo fi xaj waaw ala kulli xaal il faut ñu naan yàlla nee na yonent bi nee na loolu moom kenn mënu ko fee dindi te gis nga xeeti wax yii wax yii nga xam ne moom lañ ko kii yàgg na fi yàgg na fi kenn mënu ko fee dindi waaw man dama jàppoon ne fi ni nii en ñun jullit ci beneen dimension lañ waroon toll budul bii nii dama ci am sax en tant que ñoo xam ne tey maanaam ñu dul julli ñu ngi maanaam ñu ñu ngi seetaan waaw da gis ñoo xam ne nii tey duñ ay ñi nga xam duñu ay julit ñoo ñoo gën a bari ay wuute fuuf te bu ñu waree xeex dara dañuy booloo ñoom mel ni koo xam ne nii amuñu benn wuute ñun nag dafa mel ni ba léegi maanaam loolu tollaguñ tollaguñ folo tollaguñ foofu waaw.